sama jàmbaar jàngoog Balla Gaye 2 l'arrivée exceptionnelle de Balla Gaye 2 ci Aladji Malick TV nee ko Balla chaque année maanaam ñu def diwo bu sap-sap diwo bi nag diwo bi nag mënut a ñàkk ma nga met sop maasa goog ci ginnaaw Balla Gaye jàmbaar yi fàkk ca di jiita gonek Ndakaar gonek Géejawaay doomu nday nday euh, alaaji Aziz Ala Ngok mook alaaji Malick kii bi mook alaaji Malick chaque sama doomu ndey ngoog mook mook El Hadj Malick moo koy dalal dëkk bu sell non kii mooy dalal Balla chaque année El Hadj kii mën da ñàkk ba avancé dem ko bëgg di nga bàyyi jël ko di non <laughs> mesam nga leen mesam wala rawaan bi ñuy wax ginaaw yàlla man ci laa toog am na def lu bëri yoo xam ah tax na dëgg mais wax mesam li nga wax ay jëkkal gisul mesam li nga wax ko def dëgg nga wax gisul dëgg nga wax bu daanee tabaat la ginaaw yàlla man am lu rawaan la boo xam ne dàq bu rawaan boobu kenn la respecté si àdduna muy Balla Gaye ak ay yéen ñu wax dama doon naan comme Mbaye Seye dañuy wax mbokk bi ay Seye la tudd man rakk Mbaye Seye la mooy Ama Baldé faram kàmb moom kii dafa bokk benn deret muy daw seen yaram li ci ñemee benn mën ñeme ko kii bokk bi ay tëbb naax ak mbokku jaay mbottum njool njool. waaw comme. bayra kaña bi eh, la. nga ni sama jàmbaar jàngoog Balla Gaye 2 l'arrivée exceptionnelle de Balla Gaye 2 ci Aladji TV nee naa ko Balla chaque année maanaam ñu def diyo bu sap-sap diyo bi bi nag mënut a ñàkk ma nga copain ma ngoog met sop maasa ngoog ci ginnaaw Balla Gaye jàmbaari fàkk tëdd ji gonek Ndakaar gonek Géejawaay doomu nday Alaaji Ba tuuti doomu nday euh, Alaaji Aziz Ala Ndiaye Alaaji Balla Ngok mook sama doomu ndey ngoog mook mook El Hadj Malick moo koy dalal dëkk bu sell non kii mooy dalal Balla chaque année El Hadj Malick kii mënut a ñàkk. ba avancé bu saa yi atam leen avancé non Balla nit ñi ko bëgg di nga bàyyi gars yi jël ko di. non maanaam. yàlla moo daanee tafaati ma. mesam nga ne mesam. ma ne la rawaan bi ñuy wax tey tafaati bi naan yàlla man ci laa toog am na ma def lu bëri yow xam nga. tax na dëgg la waaw wax dëgg nga wax. bu daanee tafaati la ginnaaw yàlla man amul ma. mesam nga ne mesam. boobu kenn la respecté si àdduna muy Balla Gaye ak gars yi dañuy def wax dama doon naan dëgg la comme sama papa moo tudd Mbaye Seye dañuy wax mbokk bi Mbaye Seye la tudd ma rakk Mbaye Seye la fi ko faako mooy Ama Baldé baram kàmb moom kii dafa bokk benn deret muy daw seen yaram li ci ñemee benn mën ñëwee ko at kii mbokk bi yaay tëbb naax balaa ak mbokk bi yaay ngotum njool njool waaw comme ni bay na lan ma ñëw